Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de suivre la RTS et Deweniti à tous. À l'occasion euh, de la fête de l'Aïd el-Kébir, euh, communément appelée Tabaski, le président de la République, le chef de l'État euh, Macky Sall, a donc effectué la prière euh, chez lui, à Fenêtre Mermoz, euh, en raison, vous le savez, de la crise sanitaire du Covid-19. Euh, comme vous le voyez sur ces images, le chef de l'État a commémoré avec euh, l'immolation du mouton euh, conformément à la recommandation euh, de la religion musulmane. Voilà, le chef de l'État donc a prié chez lui et c'est de Fenêtre Mermoz qu'il s'est adressé aux populations sénégalaises dans son traditionnel message qu'il lance donc à l'occasion de cette fête. le président Macky Sall a une nouvelle fois au-delà, bien sûr, euh, des vœux qu'il a adressés au peuple, une fois euh, sensibiliser les populations le contexte actuel, marqué par euh, une nouvelle poussée épidémique Covid-19. Je vous propose de, de suivre le président de la République, Macky Sall. Mes chers compatriotes, en cette de Tabaski, de grâce, de de solidarité de partage, je vous présente mes vœux de bonne fête de Tabaski. Dans les circonstances particulières que nous vivons, marquées par euh, la recrudescence de la pandémie de Covid-19, avec une nouvelle poussée, poussée caractérisée par l'apparition de plusieurs variants, surtout du variant Delta, avec une contagiosité élevée, je voudrais encore une fois lancer un appel à l'ensemble des compatriotes et aux autres étrangers qui vivent parmi nous pour dire que plus que jamais, nous devons redoubler de vigilance. Nous avons été résilients pendant la première et la seconde vague. Il nous faut persévérer dans les mêmes formes. En ce qui concerne cette nouvelle poussée épidémique, Il n'y a guère d'autre solution que de respecter les gestes barrières. Continuer à respecter les gestes barrières avec le port obligatoire du masque, le lavage fréquent des mais mais également éviter les rassemblements. L'autre alternative reste la vaccination. Au-delà des acquisitions réalisées par notre gouvernement, des pays partenaires nous ont gratifié d'un certain nombre de lots importants Je veux citer la France, je veux citer la Chine, je veux citer les États-Unis d'Amérique. Hier encore, nous avons reçu des doses de Johnson Johnson, mais également euh, et surtout l'initiative COVAX. Et bientôt, l'initiative de l'Union africaine appelée AVAT, à travers le soutien de la Banque mondiale, devra permettre de disposer de plusieurs millions de doses. Je voudrais encore une fois lancer un appel pour dire que ce combat contre la Covid est un combat national. C'est le combat de tous et de chacun pour vaincre la maladie. Et cela est à notre portée. Je salue l'initiative des chefs religieux, chefs coutumiers, de la société civile, des politiques, pour que la communauté, dans sa diversité, puisse continuer à se mobiliser pour le respect des gestes barrières et surtout pour une vaste campagne de vaccination. bon fête de Tabaski et déwénati asalaamaaleykum mbokk Sénégal ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sangam bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi amaan mbegte ci taxawaat fii ci bésu Tabaski di bës bu mag di ballu ak waa réew mi te di baal ñëpp àq di wax na nag suñu borom bi nga xam ne moo moom lépp moom sabab yëpp def na ba ren mooy ñaareelu tabaski boo xam ne ñu ngi koy def ci biir mbas mi muy lu xaw a tiis euh, waaye ma bëggoon profiter ci bés bi di ndokkale kilifa diine yi xalif généraux yi ci réew mi kilifa aada yi di ndokkali waa Sénégal yëpp ak umma islamique yëpp ak suñu bokk ñu bokkal réew mi te nekkuñu si lislaam a ah, ren nag kom waxtu wi daaw fekk nañu mbas mi dugg ci réew mi waxtu wi may wax ak itam xam ngeen ni ci àdduna bi mbir mi jógaat na mbas mi nag jamono ji ñuy wax dafa am màndarga bu bees boo xam ne euh, mu ngi wone teel bu gaaw a gaaw ci lu mën a law euh, te loolu mooy tax léeg feebar ñi feebar bëri ba tax na dana gaaw ci dépasser capacité hôpitaux yi loolu tax ñu war a fagaruwaat maanaam wàññi dem bi ak dikk bi luñ si mën wàññi ñu def ko lu ñu mën si takk masque ñu ko ñu koy def ak di raxas loxo yi na ko yi di santaane waaye leneen li mooy ñàkk yi démb rek gis ngeen ni Sénégal recevoir na ay doses yu bare bare yu jógee ci réewum Amérique mu nekkoon don boo xam ne jox nañ ñu ko semaine bi danañu jëliwaat ci Chine lu toll si ñetti téeméeri junni yoo xam ne ñu jëndaat la loolu yëpp bu ñëwee dana nekkaat beneen euh, lu ama am solo euh, weer wi ñu dëgmal muy weeru août am nañ ci yaakaar bu baax a baax ci ay euh, junniy junni téeméeri junni wala sax lu ëpp million ay million ci ay doses yu war a jóge ci initiative bu Union africaine ñu tuddee ko AVAT waaye aussi si COVAX loolu yëpp kon mu mel ni ñàkk yi moom lu ci ama am solo la ngir wàññi forme yu jafe yi kon li des daal mooy ni ko kilifa diine yi santaane waa kër docteur santaane ko ñun gouvernement bi ñu wax ko santaane ko mooy ñu yokk euh, fagaru bi ci ndaw ñi surtout ci gox yi waaye aussi si njaboot gi ngir euh, ñu mën a am maîtrise si feebar bi la maa ngi ndokkalewaat waat réew mi yëpp di balluwaat ñëpp àq te di baal àq ñëpp ñu ñaan yàlla jëlee fi mbas mi yàlla may ñu nawet bu baax bi ñu dëgmal muy nawet bu ànd ak barke te bu ñëwee béykat yëpp muurloo ko allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim voilà mu nekkoon kon euh, son excellence euh, président de la république Macky Sall ci message boo xamante ni yëkkati na ko comme ni mu koy defee euh, julli bu nekk ngir rek Euh, balu ak euh, askan wi waaye tamit balleen ak waaye tamit ñëwaat euh, ci li nga xamante ni jamono ji moom moo xew di mbas mi lëmbee àdduna te ñu seetlu ni jamono ji kon am na beneen jéego bu mu am kon dégg ngeen ko président la république mu wax ne loolu waruñu bàyyi mu ñuy daan ndax am na jéego yu am solo yoo xamante ni defoon nañ ko donc ne ñëpp takkuwaat ngir rek ñu xeex mbas mi respecter mesure barrières yi waaye tamit. pare nangu dem euh, ñàkku ji euh, gis ngeen sax ne annoncé na euh, li nga xamante ni moom mooy ay dose yoo xamante ni dina ñëw ci fan yi ñu jëm démb rek wax na ko moom it njiitu réew mi am na ay dose yu ñu jot mu jege fële ca États-Unis kon daal li ci des mooy ñëpp fagaru muy gërëm ñëpp di sant ñëpp ci wàll woowu di ñaan rek kon ñëpp jógandoo ngir rek ñu daan mbas mi di baalu ñëpp ak jërë ngeen jëf ci sama tour direction RTS ak personnel bi yëpp ñu ngi leen di euh, baalu ak di leen souhaiter bonne fête de Tabaski